salaam jaamu ko mbedd niggas baa ngi nuyoo leemaa ku mëj wël waa déggu ko fay ma isa booy ji ji jili der aka boy grand aka messi aka takke aka masàllah boobu sama jigéen Khadija moo ma ko jox Khadija dina ñëw esplanade grand théâtre tout plateau festival Elzo Jam Dong ñu dugg si biir jox gars yi sunu téléspectateurs yi Equivox TV ñu jox leen exclusivité show Elzo Jam Dong bi Khadija da nga topp ñu jam gars yi bi ñu seetaan ko ñëwaat léegi-léegi sama gars yi topp leen Mister Doudou naka mu yeah bëgg naa la bro naka mu nekk jàmm naa si loo nekk ah sama sant yàlla bu baax mais temps yi dañ la gëj a gis nga yëngu lu xew ah temps yi dama nekkoon ci benn repos nii quoi xam nga benn quatre ans cinq ans ma ngi ah, ma dama nekk xam ne su may ñëwaat damay andi yu bees yi gën a soxor dégg yaakaar naa grand théâtre nga mujjee yënguwaat waaw waaw grand théâtre bi mooy bi passé ñi ngi waajal sax troisième édition bi incha allah si année bi di ñëw année bi 2020 waaw fan fin d'année bi incha allah instant bi Doudou lan lan mën a xaar si moom pour mu jox ko sénégalais yi leneen lu bokk ak li mu leen daan jam bon euh, instant bi ni pour le moment bëggaguma changer carrément quoi maa ngi ci affaire yi maa ngi waajal spectacle bi maa ngi ci série yi ak tamit bëgg naa incha allah yàlla su ma jàppalee am na yàgg naa ko wax yàlla na ci yàlla jàppale am na série boo xam ne maa ko bëgg defal sama bopp sama série bopp la incha allah ba moom bu ñëwee gars yi nañ kontaan lu yéeme laa lay teg na affaire comédie bu soxor mais Doudou jamono bi gis nañ seen milieu bi def ay booy yi ku mujjee juddu gën a tàng concurrent bi tar na Doudou naka la koy dundee non kontaan rek parce que bañ ci ba ñuy doo commencé maa ngi ko doon wax Makhouss benn jour ma ne ko ñun bëri wuñu fii quoi lay dax parce que suñu bëree dina tax ñëpp di liggéey ko waa xam nga mais boo fi nekkee yow kase amul keneen doo am envie dem dara parfois da nga naan ah gars dañuy xaar bu ñu kiiwee mais boo gisee ne ñëpp a ñëw benn instant dina tax gars liggéey benn instant tam dina tax affaire bi diversifié wu kii di def lii kii di def lii kii moom lii après gars yi commencé xam ni Sénégal am na ñu fi nekk di koy def. mais Doudou gars yi nee nañu yow ak Mahfouz naasul. ma Mahfouz non Mahfouz sama bro la. gars yi ñoo non conseil daju bi rek ñëw ah, ñu ngi doon woo woote woowante appel Maxfuus moom sama borom la Maxfuus moom soo am problème ak moom macha allah Maxfuus problème. kon gars yi daal ñooy wax rek. jaajëf Dodo ñu ngi lay bëgg. bëgg naa la bro. jaajëf respect ñu ngi taxaw ak Astar gëjoon nañ ko dégg. di mi ngi nii moom la ñëpp di wër tey gis nañ ko Astar si loo nekk. ku gën a rafet Sénégal. mais dafa jafee gis foo nekk sénégalais ñu ngi lay laaj. man damay xaar 2020 commencé rek Euh, nouvel an nouvel Astar et nouvel son nouvel projet beneen level incha allah. dañ la gisoon nga amoon départ bu garaaw ñu jékki-jékki saa yi gisatun la. ba yenn nit ñi sax naan dafa am ku la jege ko pertoon moo xawoon mm-hmm. baare sa carrière. Mm-hmm. looy wax sa fans yi nga xam ne ñi ngi lay xaar boobu léegi. exactement loolu moom lu nekk la. Mm-hmm. mais incha allah comme ni ma ko waxee 2020. projet yu garaaw ak yeneen affaire parce que Astar warul bàyyi te yéen yéen ñeen a fi nekk pour supporter ma donc incha allah Astar mu ngi ñëw ak yi bees tàkk 2020 Astar album bu muy waajal day am rap wala bi mbalax lan ak lan world music maanaam lépp la ciy rax parce que man dama nekk artiste boo xamante ni world music lay def yemam ma si mbalax nii rap nii rien du tout donc lépp laay jaxase incha allah mais mën nañ ci xaar ay featuring ak ay artistes. bien sûr bien sûr featuring yu toj yéen daal 2020 incha allah. bi mën nañ xam ni mën nañ xaar mu nekk sa at 2020. exactement atu Astar di ngeen xool Astar si beneen level incha allah. yow ak Viviane ñu ngi koy xaar. mag Viviane ah loolu moom mën na nekk moom incha allah. en tout cas ñu lay bëgg bu baax. <laughs> merci beaucoup ñi ngi taxaw ak de Waas from PA Badou de Waas show bi noo ko yëgee noo ko dundee. bien show bi mu ngi cool franchement parler félicitations ay ndoom jam doon xam nga mu ngi liggéey daal mu ngi liggéey yaa ma gën a ndaw ay mais Badou ñun dañu gis jamono bi show yëpp dañ la ciy woow sa link a gars nu mu demee. waaw mais c'est normal liggéey rek comme dab yaa ngi naw gars yi dañ may call pour ma ñëw ma play parce que xam nga comme dab yéeg def lu ñu war. xam nga après pare dem ñibbi quoi yaa ma gën a noo te tamit xam nga gars yi nañ xaar Badou Dowaas mi ngi ñëw projet baa ngi seen kaw incha allah. yéen euh, Badou Dowaas mën nañu ko xaar 2020 projet boobu ba léegi gars ñi xaar. yee 2020 bii nii incha allah voilà sax balaa balaa janvier bi incha allah essayer comprendre ñu commencé du ma wax tasaare dañuy fobeere. léegi. ginnaaw peut-être janvier mën nañ la xaar mais naka waa parcelle ak Rambi Pop ak seen collectif bi ngeen taxawul. waaw en fait gars yu bëri lu ñu comprendre mooy Badoda Wise represent PA represent GIB represent Topla you know est-ce que yaa comprendre donc man du ma wax ne maanaam hip hop moo xaar xam nga du PA kese moo may xaar hip hop moo may xaar you know voilà donc ñu ngi ci liggéey bi te ñu ngi job xam nga te ñu ngi ñëw incha allah léegi léegi léegi. jaajëf Badou jaajëf. jaajëf Khadija ni ngi toog ak Jella Banks Jella Banks from tout plat wax ji bëri woon na nag si diggante Jella Banks ak Elzo Jamdong mais tey lii nii rek tontu la gars yi quoi Jella Banks sa digganteeg Elzo parce que loolu coow li bëri woon na diggante Jella ak Elzo naayisul naayis na tey gis naa la si soow Elzo Jamdong te avant ngay ñëw maa ngi doon dégg ay boy tout plat di la sollicité di la bëgg bu baax a baax mais yow ndayu mbili doo toog ñun ñuy wax sa place euh, leeralal ñi nga xamante ni ñi ngi seetaan Equivox tuuti sa diggante ak euh, Elzo Jamdong euh, salaamaaleykum Jéli maa ngi lay siyaar di di nuyu waa Equivox waaw Jello Banks ak Elzo musuñu musuñu am problème mun nañ ne mal entendu la woon tooguñu woon wax biñ toogee wax gis nañ ni du problème mais ñàkk déggoo la woon donc euh, comme que ay mag lañu te taux moo ñu soxal c'est-à-dire fi ñu nekk nii dañ fi war a yëkkati hip hop ba mu kawe benn nit mënu ko def ñaari nit mënu ko def kon kon dañuy dañuy dañuy booloo suñu doole yëngal ko mu mu mu jëm ci kanam quoi. jaajëf loolu leer na mooy dara xewul jàmm rek a xaw ñàkk waxtaan amoon mais du réeroo léegi waxtaan ngeen lépp cël na. waaw Diéla Beng ak Plateau. dafa mel ni léegi waa plateau sax da nangu jeele beñ carrément ci kaw Grand Yoff euh, Grand Yoff laa juddoo Grand Yoff laa juddoo bu ma bu ma paree fii nii damay dugg Grand Yoff comprendre nga bi may ñëw ay dama ànd ak ay booy Grand Yoff ak ay booy plateau mun naa ne man kese la la la ci hip hop Galsen man kese man maa fi am loolu ñaari koñ di ma nangul di ma nangul sama sama sama sama représentation cest à maa ngi représenté Grand Yoff maa ngi représenté Plateau te kenn si ñaar ñi bañuñ te parce que Grand Yoff dama fa foowee Plateau dama fi màggee Grand Yoff laa juddoo foowee fa sama premier gel foofu laa ko amee fa laa njëkk a encaissé ku Plateau fa laa nekkee Jella Banks mais Jella euh, réewande gi gars yi di wax si yoow tout le temps sa communication sax day feeñ réew la wala dal la quoi wala fën la wala non damay damay jaar si digg bi rek c'est-à-dire que boo gisee muus da nga naan muus la quoi comme li ma li ma li ma li ma li ma dund Grand Yoff c'est-à-dire la koy wax sama premier gel foofu laa ko amee foofu la fa laa fa laa màggee hip hop foofu la ma duggee fa laa ko bëggee te même bi ma duggee ci hip hop dama delluwaat Grand Yoff nekk jaamiru kon ñaari maa ngi leen di allier te mu ngi mu ngi mu ngi dem quoi man boo ma c'est-à-dire am na ñu bëri dañ ma naan double personnalité nga yor amaana si ñaari yar yooyu noonu la parce que ay ay milieux yu différents la plateau ak Grand Yoff waaw mais Dieyla da nga génnee benn mixé bu nice même pas 3 mois 4 mois cinq mois Dieyla Beng jamaan ñu beneen mixé bàyyi xale yi benn EP bàyyi xale yi Dieyla lu tax ngay ensonné projet yi nii nii. Jello Benz dafa toog lu yàgg nekk nekk di joob ci lu yàgg noonu noonu yëpp ma ma doon wax ni maa ngi job maa ngi doon job quoi moo tax son yu bëri son yi cest que am na stock bi fu muy toll boo continuer job yi si ginnaaw dootoo ko génnee moo tax dañuy c'est-à-dire que dañu toll si libéré mooy li may wax gars yi rek commencé guñu sax def dara dañuy préparer terrain bi nii nii rek lu ñu mun dëgg dëgg dëgg defaguñu ko. mais Jella Beng dégg naa ni léegi da nga changé label yaa ngi joob ak ñoom xumaan waaw maa ngi maa ngi natud red maa ngi natud bi ma jugee jaamiru jàmm ak salaam laa seq ak ñoom def nañ ci man loo xamante ne ni hip hop beneen mbindeef du ko defati si man parce que falaa wóoloo sama bopp falaa nekkee Jella Beng même bu dee ñaari nit yi ma njëkk a xam fa lañ ma fa lañ ma xamee quoi ma kenn dara ku dul jaamiru sa link ak Jahmerue moom nice lépp nice. nice ba léegi saa yi ma defee son bu bees damay dem ba ñi ma ko war a tegal tegal leen ko samay vidéo damay si échanger ak ñoom ak lépp lu ma munti munti def damay déggante ak ñoom parce que du du li ma fa nekkoon moo ñu boole samay frère lay sekk nañ sekk nañ lu lu lu même même bu bu ma demee ba am ba am succès Michael Jackson du mun a tax ma changé loolu. lekk bande yu ñu tàmmaloon fu mu toll. cinq baa yi ñëw de. mun nga nu jox date bi. xolli ay góom. xolli ay góom la tudd. ma ne cinq baa yi ñëw te dama si xolli ay góom dama si dagg ay baat. ok ok ok mais baat yu ngay dagg ba duggul Grand Yoff. loolu loolu. parce que tàmm nga dugg Grand Yoff di dagg ay baat. comme Baadu Kan. <laughs> gis naa nga dagg Baadu Kalbala. ah kon Baadu Kalbala dagg na. <laughs> non dagg baatam. non non jotuma dagg baatam loolu noon c'est trop gentil pour dagg baat su ma dem man su ma demee ba clash balay clash teg dama lay wax lu la metti duma duma genre man bugguma clash muy nul. mais eh, kon lekk bandi 5 bi jeela kañ lay génn namm naa ko kon. lekk bandi 5 bi nañ ko ko janvier bi nii mënatul génn si décembre bi parce que équipe bi dafa génnoon dem Gambie donc dañ leen di xaar ñu teew euh, ak suñu suñu suñu événement yi nii genre dañ ko mën a génnee quoi si digg bi parce que Dhofla show bi dañ ko dañ dañ ko waroon représenté teg ko si teg ko si code ba nga xamante ne nii hip hop Galsen dina gis ni ñun ñooy ak bagage quoi. yeah mais janvier dinañ dinañ dinañ dinañ indi. lekku bandi cinq ak vidéo bu rafet sound boo xamante ne nii beneen couleur la man lu ma def rek bëgguma ko defaat quoi. jaajëf Khadija ñu ngi taxaw Cool 10 Cool 10 ñaari tali mu génnee benn album bu naan lu dul yàlla nen la ñu laaj ko album bi fu mu toll temps yi tegoon na benn concert samedi bi passé waa euh, ñaari tali yëpp génn support seen doom euh, Cool 10 Cool naka mu. yeah jili nice nice muy cool lépp jàmm. naka album bi lu dul yàlla nen la. waaw alhamdulilah album mi ngi mi ngi mi en cours xam nga affaire mi ngi daw gars yi ñu ngi déglu waaw nice quoi alhamdulilah. am nga si satisfaction. waaw alhamdulilah alhamdulilah ba fii moom alhamdulilah. sa concert bi nga tegoon plein air bi si esplanade ñaari tali ñi ngi fa woon concert bi feesoon na dell. kul lan mooy linkam ak waa ñaari tali ba boo wootee ñu wuyu la lan la. waaw mais bon dëgg si quartier bi d'abord xam nga c'est que nit yi jaamu peut xam nga. ak liggéey tamit quoi xam nga parce que gars yi duñ doo doo doo toog nii rek ñuy ñëw quoi il faut nga am loo dem pour ñu ñëw quoi peut-être loolu la affaire yooyu ñoo tax boo wootee gars yi ñëw quoi. te nga war a prester surtout plateau bi festival bi euh, sa link ak Elzo. waa naaj sax parce que personnellement xamante wuñu peut-être mais bon gars yi link nañ ma ba affaire yi demee nii quoi. maa ngi remercier gars si invitation bi. est-ce que du album bi naa saay bu naaj. waaw peut-être nañ mën nañ ne peut-être sant bi kuul jooyatul g si yenn yenn yenn soow yi loo xam ne raaroon na raaratul si yow waaw bien sûr bien sûr ba bi génnee ba léegi moom alhamdulilah ñu ngi ñu ngi nekk ci show yi xam nga te incha allah dina gën a yaatu quoi jëf jaajëf ñu ngi lay bégee bégee bégee Equivox jaajëf jaajëf Khadija maa ngi taxaw ak Ismo Ismo boo ko déggee petit frère Elzo Jamdong moom it bu nekk benn boy nekk rappeur underground nekk si suuf di job mais Ismo lu tax booy ngeen làqatu kenn du leen dégg ak sa grand muy yëngalee game bi. waaw loolu wow defe naa ni moom loolu du lenn quoi lu dul euh, benn koo xamante ne pousse rek pousse pousse la quoi coup de pousse rek la laajte parce que instant bii nii moom ñun moom ñu ngi job ñun moom ñu ngi job mais mel ni suñu town area dafa xaw a benn émotion hip hop sedd tuuti rek mais xal na xam naa loolu la ñu war a vulcaniser rek loolu job boobu noonu moom ñu ngi ñun moom pare nañ pour 2020 waaw incha allah ñu demam dem ànd ak gars yi dem ba fu mu fu mu yem moom. mais Ismu si loo nekk naka projet yi foo toll ak job bi. waaw ñoo ngi si bu baax ñoo ngi si 2020 incha allah ñoo ngi ñëw ay projet yu bëri démb rek jot naa dugal benn clip nice jëla sa wàll 2020 ñoo ngi ñëw ay épisode freestyle ak mixtape xaar lañu si mixtape incha allah mixtape yi. mixtape ngay génne waaw épisode freestyle laay tàmbalee dem ci mixtape incha allah. mais mun nañ si xaar featuring yow ak sa grand frère. waaw waaw waaw nañ si xaar featuring kay parce que loolu wax nañ si ba pare loolu wax nañ si te loolu xam naa tamit down la luy nice la tamit nit dañ ko war a def waaw wax si ba pare. ñu lay bëggee. waaw bëggee nañ la bu baax di bëggee jàmm donc tamit topp laa dëkkee big up.